fekkee na ñu ngi fii ci Daaru Salaam di dëkku maam Seex Anta euh, tey nag li waral jotaay bi mooy euh, mbooloo mi nga xam ne mooy association And Liggéeyal Daaru Salaam dañoo amoon yéene ci dugal seen loxo ci jàngoor ji nga xamee ne yàlla wàcc na ko ci àdduna bi neen yàlla mu saafoo ko ca yëkkati ko mu di am natt ñu gis ne nag euh, day yàlla yu mel ni bu xewee kenn ku ba nga nekk comme que oto état bi loxo loxoom jotul ginnaaw bu baax a baax ñun citoyen ñi ñoo ñoo ko jàppale ci loolu ci mbooloo mi nga xam ne moo tudd association an liggéeyal Daaru Salaam defoon benn euh, bàkkeelu benn participation donte xëy na <coughs> man moom demewulu xem nañ ko lool waaye ñu feeñal suñu yéene génnoon ci somb tollook téeméeri junni jëndoon ci ay matériel euh, dañoo bëgg a participer symboliquement ci Euh, xew-xew bi ak tolluwaay bi nga xam ni moom la jamono toll ñu xam ni mbooloo mi ak association ànd liggéeyal Daaru Salaam yitteem rek mooy askan wi seen yitte faju te loolu lum ci man rek mu ngi koy def euh, fu dooleem toll rek euh, ma nga fay ànd ak askan wi kem loole doole ji lu mu gën a yokk ab àndam ak taxawaayam ci askan wi di gën di yokk ndax ñoom amuñ leen yenn yitte yu dul yitte askan wi faju loolu mooy seen yitte te loolu rek mooy li nga xam ni moo tax mu jóg ndax sunu diina dañoo diggal ñuy dimbalante euh, lan tanaalul birra xatta tunfiqu mimma tuhibbun alxuraan danañu lu baax moom kenn mënu koo am te làmbul poosam joxe lim gën a bëgg waaw ndax nit lam gën a bëgg mooy am am ak alal nga ja nga tëbb ca jox sa mbokkum jullit yonent bi sallallahu alayhi jàngaloon ñu naka lañu wara yëgante sunu bopp sunu biir ndaa noonu mathalul muminina fi tawaddihim wa taraxumihim ka mathalil jasadil waxid ida shaka minhu udwun tadaa lahu sairul jasadi bi sahari wal xumma yonente bi ko misaale woon sax day mel ni moo ñu moo moo tey jii dani euh, nit ñi day wala julit ñi dañoo mel ni nit koo xam ni daa am fenn ci yaramam fu fu yow su fekkee sa bopp doy metti doo ni samay bopp day metti ko samay tànk metti wut naa dem liggéeyi déedéet su fekkee daa am loolay metti daanaka sa yaram wépp a koy yëgandoo sa yaram wépp a ci ànd nee na noonu nag la julit ñi mel képp koo xam ne am na ci jafe-jafe rek ñi ci des ñépp dañ koy yëgandoo dañuy solidarité ak moom jàppalante ak moom jamono ji Sénégal toll nag jamono ju am jafe-jafe la jamono ju metti la jamono joo xam ni jamono ju nekk lañ aajo woon nekk benn lañu ñu aajo woo woon euh, boole sunuy doole mais jamono jii la raw war na ñëw boole sunuy doole euh, ci xeex feebar bii nga xam ne yàlla dañu ko nattoo euh, xeex bi la ci jëkk mooy la ko jiitu mooy ñaan mais la ciy topp mooy ñu fagaru fagaru mooy deuxième étape bi di raxas sunuy loxo ni ñu ko docteur yi di digale di moytu jaxasoo bi ñetteelu étape ba mooy feebar bi day waral ay ay conséquences économiques yu metti yooyee it ñu jàppalante ci suñ biir ñetteelu étape boobu nag moom moo tax ñu daje fii tey eh, jël ci sunu am-am eh, ab enveloppe bu am solo eh, jënd ci ab dund jënd ci ay jumtukaay yu jëm ci wàllu set ak loo xam day jëm ci wàllu ci hôpital bi hôpital li tax ñu gën cee insisté mooy soo fa defee defal nga dëkk bépp ndax moomeelu dëkk bépp la waa dëkk bépp fay ñëw loo fa yóbbu mu tuuti ak mu bari rek day mel ni yow dugg nga kër gu nekk jox leen parce que kër gépp kër yëpp ñoom ñoo am yitte ci hôpital boobee te mënuñoo matal kër yëpp suñu yitte rek mooy taxawu askanu Daaru Salaam taxawu du yemul ci askan Daaru Salaam parce que loolu mooy sunu manoon fi la yem waaye askan wépp sunu kem kattan looloo taxoon nag ñu ne ñi gën a yittewoo ci askan wi jamono ji mooy dongay daara yi ndax ñoom wax dëgg am nañ ay jafe-jafe ci seen wàllu set ci seen wàllu jëfandiku euh, moo taxoon ñu ne suñ leen di bàyyi xel nañ tànn si ay ay ay daara bàyyi leen xel bu baax jigéen ñi wax dëgg ci wàllu set gi ñoo yor kër yi ñoo yor fami yi ñoo yar xale yi ñoom it jamono ji dafa jamono jamonoy set moo taxoon ñu waajal baax a baax loo xam ne dafa jëm ci wàllu set. parce que àdduna tey jaaxle na Sénégal jaaxle na ñëpp jaaxle nañ ndax jàngoro bii ñuy wax corona bi nga xam ne moom moo nekk si àdduna bi tey. Euh, mu nekk loo xam ne tiital na àdduna bi yëpp waaye am naa yaakaar ne am na njàngat mu bari boo xam ne bi mi ngi si biir euh, kilifa yi gis nañ ko boroom xel yu baax yi gis nañ ko mooy que di jullit ñi heure bu ñu jógee ba jàppaloo di dimbalante yaakaar naa ne yërmande borom bi dina wàcc te yërmande borom bi bu wàccee rek amul muy balaa amul benn jafe-jafe boo xam ne bi mënu koo faxas donc am nañ yaakaar ne tey ñu ngi si yoon boobu man nag euh, tey sama xel dafa dal man mi nga xam ne man maay El Boydo Ba nekk tey ICP Daaru Salaam bu mu fi ñëwee yàggul maa ngi jógee Taïf bu sëñ Mbàkke Soxna Lo donc euh, toujours topp si yoon yoo xam ne yoon yu baax la gën a jàpp si mbiru wérgu yaram ndax gu yaram moom mooy lépp ñun ñëpp ku si am euh, xel mu dal ku si am tawar rek sa liggéey yëpp day taxaw donc yaakaar naa ne ñun ñëpp ñu si jàppee mbooloo moom mooy doole kon dinañ dem ba post de santé bi euh, wees sax fii te am naa si yaakaar ndax lii dal na sama xel ndax man tàmm naa liggéey te du may du may faral di tàllal loxo mais tey wan ngeen ma yoon boo xam ne bi nii euh, kenn nit mënul ñaar nit mënul ñett mënul mbooloo moo mën